assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi ni seetaan gannaaw bi nu sante yàlla suñu boroom cant gu yàlloog jëmmam ju tedd ja jëmmam ju màgg ja ju sell جلتي سانغو سانغي مي سيد الوجود وعلم الشهود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نيان يالا سون بوروم يالا دولي رانغ اي غرات اكي مقاما كيغا خامني موي سونو وسيله سونو ديغنتي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم لمولانا السيد الشيخ احمد التيجاني الشريف رضي الله عنه ñaan yàlla suñu boroom xalifaam yu tedd yi ko wuutu ci kaw suuf ku mel ni mawlaana cheikh alxaaji omar al fuutiyu radiallahu taala anhu ak mawlaana cheikh alxaaji malik ak mag ñi mel ni ki ñoom yal na yàlla yeesal seen leer ci barke yonent bi alayhi salaatu wassalaam nuyu itam ñi nga xam ni ñoo leen fi wuutu ci kaw suuf ku mel ni suñu xalifa bu tedd bi Cerno Mouhamadul Bachiru Taal yal na yàlla dëgëral ko yal na yàlla wéral ko yal na yàlla yokk fanam yal na yàlla yàggal ko ci kanamu umma islaam bi ndax damay wax ni Cerno Bachir ëpp na sëriñu tariqa sëriñu umma islaam bi yépp la ñaanal ko yàlla fan wu gudd ak wér nuyu bu baax mbokkam mu baax mi sëriñ Babacar Sy Mansour moo it lii yàlla ma wax ko ci xàqu Cerno Muhammadul Bachir mooy yal ma wax ko ci xàqam ndax seen ndono benn la te mooy ndono yonent bi alayhi salaatu wassalaam nuyu waa réew mi yëpp ziyaare leen ndokkele leen waaye ñaan yàlla subhaanahu wa taala li gën a cher ci doomu aadama te gën ci doomu aadama te doomu aadama soxla ko adduna soxla ko bàmmeel soxla ko taxawaay yomal qiyaam soxla ko àllaaxira yàlla ñu ko yàlla boole defal te loolu mooy jàmm yàlla ñu yàlla boole defal jàmm ndax sama maam ja sama soppe ba cheikhul xalifa ababacar si radiallahu anhu suñ babacar dafa daan wax ni bu sop bu bu bu bu bu soxla dee ñaar jàmm am su jàmm amul soxla benn rek lay doon ñu ni ko mossi Malick lan la mu ni mooy wuti jàmm ba am jàmm suñ Babacar daana wax ni lépp loo téye mu yàgg ci sa loxo dafa fekk booba jàmm am waaye su jàmm amul loo téye lu dul jàmm du yàgg sa loxo kon jàmm jooju yàlla ñu ko yàlla boole defal ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen ni ñu ngi dëgmal xew-xew bu rëy bu màgg muy tabaski tabaski nag buñ ko waxee xel yëpp war nañ dem ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa ndax moo ko sunnaal ci xeetam waaye xel yëpp war nañu dem ci maam ibrahima alayhi salaatu wassalaam moom mi nga xam ne pas-pasam digganteem ak boroomam cofeelam digganteem ak boroomam ngëm-ngëmam digganteem boroomam moo ko jaraloon mu tër doomam ju tedd ju sell ja ju bëri valeur te bëri ngëneel muy maam Ismaila pour fas yéene ko rendi kon xew-xew boobu buy ñëw du xew-xew bu tuuti muy tabaski bu ma nee du xew-xew bu tuuti réyul ngir alal alal du ca dem déedéet rëyul ngir looy fàggu déedéet rëyu pas-pas la maanaam sa pas-pas moo war yënguwaat ci lan sa digganteeg sa borom ndax maam ibrahima alayhi salaatu wassalaam boo gisoon mu nar a rendi ismaila pour tabaskee ko lu tax pas-pasam digganteem ak boroomam boo demee ci téere ñu ngi lay nettali ñu la sayduna jibril alayhi salaatu wassalaam dafa mas a waxtaan ak yàlla suñ borom xam nga ibrahima dafa gëm yàlla mën ko wéetal bañ tuddee ko imaamul muwahidina njiitu ñuy wéetal yàlla jibril ni yàlla ah ibrahima nag da nga ko defal cër faawu mu wéetal la def nga ko yonent muy benn ba pare nga tuddee ko baayu yonent yi muy ñaar ba pare nga ne mooy sa xarit ndax yaa wax ci alquran wa taqazallahu ibrahima xalila cër bu nit di am muy cëru yàlla am na ko ba pare li mu am ci alal kenn xamul nu mu toll yàlla ni ibrahima yëgoo ni yàlla ni jibril yëgoo ni ibrahima alal ji fii la ko teg ci ginnaaw loxo bi waaye tegu ko fii ci biir loxo bi ba muy agsi fii ci xol bi parce que alal boo ko tegee fii da koy nëpp doo ko joxe boo ko tegee fii nag danga koy joxe mu ni fii muy xolu Ibrahima man yàlla rek maa fa nekk yàlla yebal Jibril ne ko demal nga xool ko maanaam demal nga testé ko Jibril ñëw fekk maam Ibrahima alayhi salaatu wasalaam bu toog jàkkaarloo xar yi bëy yi nag yi giléem yi te wax nañu jur gi ko yàlla mayoon moom Ibrahima benn bu nekk daf la takkal benn collier te collier bi or la kooku alalam bari na suñ ko masaan wax lan moo tax ngay nga eh, eh, jur gi nga am rawatina xaj yi xaj yi mu am xaj yi ta yi sàmm jur gi junni xaj la xaj yi junni xaj xaj bu nekk mu takkal ko benn collier or suñ ko masaan laaj ni ko Ibrahima lan moo tax oor ni mu chére ñëpp daw di ko wuti nga koy takkal sa xaj yi sàmm sa xar yi mu ni alal sobe la xaj sobe la moo tax ma boole ñaari sobe yi xam nga kon kooku or ba defu ko fii tegu ko sax fii ci suuf la ko teg Jibril nag bi mu ñëwee fekk maam Ibrahima toog mu nuyoonteeg moom ni ko góor gi kan moom xar yu bari yi ak bëy yi ak nag yi ak giléem mu ni ko man la ko yàlla dénkandi dégg nga wax la ko yàlla dénkandi jibril daal ni laa ilaha illa allahu kii moo bari alal wan maam ibrahima gannaaw bëgg a dem maam ibrahima ni ko kaay xamul ni jibril lay waxal de ndax melokaan nit la ni ko kaay mu ni ko loo may doye mu ni ko kaay mu ñëw mu ni ko jaaral ci jur gi maanaam jur gi jaaral ci seen digg nga xaaj ko ñaari parti ñaari xaaj mu ni ko pour mu ni demal def ko rek te ñëw naa Jibril jaar ci diggu jur gi benn bi fegg jëm nii benn bi fegg jëm nii mu ñëw ci maam Ibrahima ni ko def naa li ma waxoon mu ne ko tànnal ñaari xaaj yi boo ci bëgg mu ne ko pour mu ne ko ni ma bii laa bëgg rek naa Jibril ni ko bii laa bëgg mu ni ko jël ko may naa la ko mu ne ko pour lan nga ma koy may mu ni ko li nga wax laa ilaha ndax dangaa tudd ki ma gën a sopp ci sama xol muy yàlla jibril bi mu bi ibrahima waxee loolu jibril dellu ca baat ba daal di waxaat ni laa ilaha illa allah góor gii moo tabe seydina jibril man ibrahima ni ko waxaat nga ko di kon nag jaratul xaaj boole lépp nga jël may naa la alal yëpp bis na ko tey yaay borom jibril taxaw di ko xool ba mu yàgg mu ni laa ilaha illallah man waaru naa di ci nit ki mu ni waxaat nga ko di léegi nag amatuma lu ma mën a maye alal ji laa amoon may naa la ko ba mu jeex tàkk sama jëmm fi des jël naa buum def ci sama baat teg ki sa loxo di sab jaam di la sàmmal jur gi ndax yàlla mi nga tudd jibril ne ko sa alala ngoog man duma nit man maay naa jibril di sayyidul amlaaki sangu malaaka yi yàlla ma yónni woon pour ma nattu la xool sa pas-pas ci yàlla jibril bëgg dem mu ne ko yëgoo nii maa ngi lay waatal ci yàlla mi sama borom te ma sopp ko dama amul doom waaye su ma amoon doom danaa ko tër rendi ko jaamoo ko yàlla ndax ma gën a cher alal yow tamit loolu nag ba mu amee ismaila ñu ni ko la nga waxoon dem ca mu jël Ismaayla fas yéene ko rendi yàlla jël xar ci àjjana mu jot kon tabaski da nga ciy jànge pas-pasu maam Ibrahima waaye jànge ci tamit xale bu dégg ndigalal way juróom muy maam Ismaayla waaye jànge ci tamit jigéen ju dégg ndigalal borom këram muy maam Haajara bu ñett yooyu jàlle nga indi nag ñoom ñëpp ki tax yàlla bind leen muy Seyduna Muhammad صلى الله عليه وسلم مو نيو سنة تبسكي سي نون كون لولو داماي واخ ني بوي نيو موتاخ ما اوبي ني خيو خيو بو ريلا واي نك تبسكي دو فيتنه دي سو امول لو جيندي خروم تبسكي امغا تبسكي يولو تبسكي يرنتي بي جيرون نياري كوي رندي ني بي سما تبسكي بي سما تبسكي خيب با يوم القيام بو بيسو تبسكي نيوي كو امول خار كون كو امول خار من باب مختار سيلا وورنا من يو امغا تيابي تبسكي ndax tabaski bala yonent defalon Yeni waale la ca bobu mom yalla nangul nako waye kuka am nak nang ko def ndax yonent bi dem na bani donte yow pam Makhtar fi la ñaari mbubb nga am ben mbubb bi soo ko ñu lebal la xar bu tabaski yi nga fay demal nga tayele se ben mbubb ñu jox la xaliss wala ñu lebal la xar nga tabaski bu tabaski jalle nga fay jeli sa bi na wax ni bisu tabaski bu pam Makhtar si la jele 1 milliard saraxa ko ngir yàlla ci bisu tabaski Umar Sarr rey benn bëy pour tabaskee ko Umar Sarr moo ko ëpp ci yàlla nee bisu tabaski nit defalul yàlla lu ëpp nga tuur deret kon lool la ñu bàyyi ci xel bu baax waaye nag fitna yi ñu ciy toggoo walla fitna yi ci doom yi di togg seen waajur yi wala fitna yi ci soxna yi togg seen borom kër yi yooyu jaru ko ndax diine dafa yomb diine mu rawatina diine l'islam dafa laabir kon kenn ku nekk nga bàyyi xel rek ci xew-xew boobu di tabaski ñu ñëpp ñu àndandoo ñaan yàlla mu ñëw ak jàmm ñu ñaanal yàlla ñëpp yàlla ñu ko fekkee jàmm ñëpp yàlla jox leen ay xar jox leen liñ ci bëgg yëpp ñuy tukki génn dëkk bi dem tabaski ci seeni dëkk yàlla yàlla yóbbu leen ci jàmm ñu fekk fa jàmm dellu siwaat ci jàmm bàyyi fi jàmm fekkaat fi jàmm kenn ku nekk nga dem ci sa njaboot ak mucc la nga amas néew nga dajale ko yóbbu ko ba ci sa njaboot dara bañ cee sànku dara bañ cee yàqu dara bañ cee dugg seen mbokku daara Pape si la moo leen doon defal seen waxtaanu wàccaayu tabaski ci Safina TV wasalaamu aleykum